يا أم روح المالك يا أم جاين عليك ابن أكيلا بعليك هند العلي ممسيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki jullit bokki taalibe ci ndigalu Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général kulu murit yàlla na fi yàgg te ànd ci kilifteefu sëriñ Mamor Anta Sali Mbakke xalifatu ma samba sëriñ Abdoul Khabir Mbakke moom sëriñ Massamba jëwriñu sëriñ Mamor Anta Sali moom sëriñ Massamba noo ngi woo mbooleem mbokki jullit yëpp ak mbokki talibe yëpp dalee ko ci sëriñ Modou May moom sëriñ Massamba ba ci sëriñ Abdoul Khabir moom ma samba waaye dalee ko ci soxna Daba Mbakke moom soxna Mbeen moom ma samba ba ci soxna maam isa Mbakke moom Serigne Massamba mbokk yi bu ngeen gisee jotaay bii ngeen xam ne ñoo ngi dëgmal xeexoo bu mag di xeexoowu lislaam di màggalu daarul karim ñu fas koo yéene amal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Chaban di weeru baraxlu yem ak weeri fan ak benn ci weeru mars ci atum 2022. jotaay bii nu toog li ko waral mooy bëgg yëgal leen bis boo xam ne bisu Seex Masàmba la xëy na fàttewu leen ko fàttali rek moo ciy am at mu ne bu ñu demee ba agsi ci kasu Saabaan muy ñaar fukki fan juróom-ñaar ci so mois de Saabaan mooy bis bi nga xam ne ci la Seex Masamba gane woon àdduna ñu de ko ko màggal njaboot sëñ tubaa gi fi nekk di ko tàmbalee ci ñoom ci sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Murtada ñu ngi woo njaboot googu képp bàyyiwuñu kenn ñi ngi woo itam mboolem seex yi seex sëriñ Tuubaa yi di woo mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci sëriñ Tuubaa ak fuñ fi mën a nekk di woo bokki diine yi nga xam ne ñoo aju ci kër këri diine yi bàyyiwuñ ci kenn mi ngi woo itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci administration bi bàyyiwuñ ci kenn président de la république yëgalees na ko ko ñu ngi koy ñaan mu taxaw ci taxawaay yam ci war a taxaw ak lam ci daa def mu def ko ci mooy jox ndigal ñëpp ñu dox niñ ci war a doxee jàpp ci niñ ci war a jàppee fa tabarakallahu te jàpp nañ na dana ko def incha allah kii magi taalibe yi ñu ngi leen di woo muy ku mel ni sëñ Madi Keñang ñu xam ko lool ci kër gi ak ku mel ne sëñ Mbaye Sarr Sénégal Tour Mouhamadou Bara Diagne moom sëriñ Mamor ma sàmba ak sëriñ Makki yu fay moom itam nga xam ne jàpp na ci liggéey bi bu baax a baax fa tabarakallahu ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp ci bés bi. ren ñu tànn benn thème boo xam ne dafay waxtaan ci. ñu tënke ko qiimatul euh, mashruaat fi tariqati almuridiya diiniyan wa ijtimaayan mooy lan mooy projet yi nga xam ne moom la yoon wi am yoonu murid taxawal ko ci at yii ñu weesu ñëpp gis teg seen bët nan la ci diine jariñoo waaye nan la ci société bi jariñoo loolu la ciy firnde rek mooy daara jure ji nga xam ne Cheikh Mahamadul Muntaxa daf ko taxawal yàlla na àgg ak jàmm te ànd ko ak moom ba tey fu ne gisu sëñ ma sàmba danga wax alquranul karim ku ko sàlloo woon la ku ko daan liggéeyal la ba tax ñu ngi woole mboolem daaray alquranul karim ci njiital sëriñ bas mu sëriñ Habib ak rabitatul madaris alquraniya ci njiitul sëriñ Xaadi Jaxate ak mbooleem daaray kaamil yi nekk ci biir Touba ba ca njaareem lu waay mën a jàng ci alquranul karim na nga ko jàng jël yool bi yéene ko sëriñ Masamba Mbàkke ci loolu ñu ngi ci woo mbooleem ahlul qasida bàyyiwuñu kenn suñu waxee ahlul qasida nag ñi ko jiitu mooy sëriñ Hamzatu mu sëriñ Shoaib ñëpp xam nañ ko ci wàllu googu ñu ngi ko ciy woo ak ñu ngi leen di wootam xisbu tarqiya mm-hmm. xisbu tarqiya tim ci njiitu Serigne Youssou moom it koy woo ci bis bi woote baa ngi noonu muy màggalug daarul karim ñu fas ko amal alxames ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru Shahban yam fan fanweeri fan ak benn ci weeru mars ci atum 2022 fii ci daarul karim parrain bi nag ren jii ñu dara jaale ko sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ibnu xaadima rasul radiallahu anhuma kon sëriñ bi nee na moo ngi koy fàttali sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy jëwriñam ak mboolem njaboot gi yëpp nee na mi ngi ci woo euh, président conseil régional di sëriñ Fallou Mbakke nee na moom ñu ngi koy woo ci bis bi waaye tamit di ci woo maire bu Touba di sëñ Abdoulahar Ka ak mboolem waa maire bi yëpp maire bu Mbakke di monsieur Galoba nee na mi ngi leen di woo ci bis boobee di leen xamal it kuréel Mawahibul Khadim bi nga xam ne dafa aju ci njaboot gi li benn bànqaas ci commission culturelle bi ñoom it incha allahu taala fas yéene génn benn magazine boo xam ne dafay wëy ak yaatal ñàngaleem Cheikh Massamba waaye tamit des na fi amal tamit consultation gratuite kon mbokk yi ñu ngi sàkku ñëpp bis bi ñu àgg ci ak jàmm te daje ceeg tawféex ak tey ak ngërëmal sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yawma ruhil maliki yawma ja لا إليه ابنك لا بعليه هند العليم مسيجي